dama bëggoon rek Baye Cheikh am lu mu ko accueillir am lu mu leen nuyoo laataa ñuy tàmbali waxtaan wi ak moom eh, ci eh, midi plus bi Baye Cheikh nuyu naa la. ñu lay fay. bu baax. di la ziyaaraat bu baax di ziyaaraat mbokk tali bi mbokk jullit ci yëpp di ziyaar waa tali bi yëpp di ziyaar sunu jëwriñ ñëpp rek. Mhm. kon nag eh, ñu ngi lay ziyaar bu baax a baax di ziyaar tamit soxna si nga xam si ni moo ñu woo. di siyaar tamit suñu waa taxaw mhm. di siyaarat ñëpp rek di jox seen wàccuwaay dina xam ni tay man seen dom laa seen xarit laa mhm. ndax man ndaw mi jang laa mhm. ndaw rek mi jang laa di liggéey Sëñ Tuubaa te maa ngi ñaan ngeen ñaanal ma ci ma gën cee yokk ba am ci affaire yi suñu borom da def ci barke Serigne Touba laataa ngay ñëw tok fi sama wet pour ñu waxtaan dama bëggoon nga euh, nga nga léemul ñu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 ولا الذي سوا يا مدبرا بما على سرية مدبرا ما توات مكار إليا باخ غبا بذكري وأوليا عنه رديت ووادي رادي بلا مكارع ولا أمرادي رجل خير جادي الشيطان أنت يا بل من مر والأوتان فرا لخير جاد لغين يا شقاء لخيرنا المغير حبيتي من الإله والنبي كليتي ثمر وسافة النبيل توفيق الخان وإلغام حد بيان لي مال وبعام بدا لي اليوم برب القيامات والقلم والقمام لا يتواد لنعي مطلبهم هني مخد مكاني وتعبون سعادتي بخير ما الكتبني وكوني القبض القديم سكر سكرني باليسر العسير مختار وادي بلا مسير سكر باليسر العسير مختار لي بلا مصير يا ربنا إن الورى تدرى لأوليائك ما ليزفوا إليك يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا فكلنا وجعلنا لفوا أمنا يا خد يا من لا لم يكن كفنا خديم مناكي الله التي قد خدا آدم موسى يسف محمدا صوماليا عليا وسليمان على حواسورا وسلي خبورا خديجة الغائسة للمصطفى فاطمة البلقيس زينب الكفا فلا إله إلا الله الشيخ إبرا لا إله إلا الله فلا إله إلا الله شيخ إبرا لا Baye Cheikh bëgg nañu léegi dangay ngay ñëw fekk si ma fii xaaral ma ñëw jël si la ñu euh, euh, toog nag waxtaan ba ca kanam ah yaa ngi gis sa bàjjen bële Fati moom da nga ko sopp de <laughs> xam nga Fati moom Sénégal yëpp ko bëgg bu dee journal da ngay kontaan ah. sa bi dafay sedd ah. jeex na Baye Cheikh tey la àndal euh, Fati maa ngi lay nuyu. Cheikh maa ngi lay fay. boo ko déggee euh, sa xol bi dafay sedd de. waaw li muy yëkkati ci xaside borom Touba yi neex na. Uh-huh. macha allah euh, ku ñu sopp la ku ñuy suivre également la ci réseaux sociaux yi Pape Cheikh. macha allah midi 33 euh, mooy doog a jot ñu am mbégte nag dalal suma doom ji di Baye Cheikh Xasida Baye Cheikh maa ngi lay nuyu. bég naa dama bëggoon bàyyi rek nga am loo ñu loo ñu nuyoo. Euh, ci euh, baat bu neex bi macha allah mais dama lay bàyyi waat nga nuyoog euh, téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ah ma bàyyi la nga nuyoog ñoom. waa téléspectateur bi ñu ngi leen nuyu di leen ziar. Mhm. di si nuyoo bi yow. Mhm. di jiite si nuyoo bi borom télé bi Youssou Ndour. Mhm. ñu ngi koy ziar baax a baax a baax. di ziaraat képp koo xam si nii rek mi ngi ci ginnaawam. ñuy ñu ngi lay baax baax baax. te nag di ziar waa Ngaye. في من صغم قايلة دين جير بخ بخ دين جوشي واتويكم sama Safur Ndaga kan? mhm. di ziarat ñu andal ci Bassirou Darame sa équipe bi nga andal waaw <laughs> sama rak Serigne Salou ak Sidi Bara mhm. di ziarat ñëpp rek di am anu loo xam ci daal moom kontaan nañ ci lool lool lool allah nañ lool ci yow yow yow yow sama doom nga ya. ana sa ana sa ay sama waajur mu ngi fi mm-hmm. Oustaz Dame Ndiaye la tudd. Oustaz Oustaz Dame Ndiaye waaw d'accord d'accord waaw ki ci des moom Fatou Chérif. Mm-hmm. bokk ci waa Guyette bokk ci Naar yi. Ah. waaw. kon kay Chérif nga bàyyi Cheikh. Chérif laa kay macha allah <laughs> ñu ñu bëggoon nga wax ñu tuuti eh, ci sa histoire c'est vrai que am nga projet bu mag. Mm-hmm. boo xam ne dama bëgg Sénégal yëpp xam ko. muy kër Serigne Touba bi nga bëgg a eh, tabax ca Ndoukoura. mais balay boobu eh, kañ nga tàmbali ci daara ji. waaw waaw ci daara ji kañ laa si tàmbali mën naa ni bi may tàmbali ci daara damaa fekk sama baay di jàngal alxuraan. man daanaka gars nit ñi ñoo fi nekk rek naan mag laa. waaw mais tamit xale laa de. mag nga. <laughs> te man tëjaguma si sax. parce que man man maa ngi gis ci interview mhm. yeeg mhm. mag la. mag la kii am na jabar. fekk na jamono si ma kii Madina. Mhm. nangam nangam. maa ngi tudd daal waaye daal. xale bu ndaw laa seen doom laa seen rakk laa seen mag seen samay mag ñin waaw ndax euh, am na loo xam si ni nit ki bu ko dee xam bu ko dee wax rek euh, te téye ko da koo xamul mm-hmm. waaw ñu ne wax ni jégal nañ leen bu baax nag. Mhm. xam naa dañoo xamul rek. dañoo xamul kay. dañoo xamul rek waaye ñi ko xam moom. Mhm. da nga koy xamale. ndax la ba seppali la day daal mhm. fekkee wuñu foo juddoo fekkee wuñu dara. bëgg ni mag nga. bëgg ni fekkee nga jamono Serigne Mbacké Madina. waaw waaw loolu tamit. yow wax yooyu boo ko dee dégg lu lay def. Ah, du ma def dara de waaye waaw kaf rek xam nga xam nga rek di reetaan waaye. moom wallaahi samay sopp lañ. bëgg nañ ma te man bëgg naa man ku ma bëgg. Mhm. dama lay bëgg. Mhm. yàlla xam na ko ku ma topp rek. Mhm. bëgg man da dama lay bëgg. ndax suñ tubaab moo def ma man su fekkoon euh, mooy comme Pape Cheikh am na ñoo xam si ni xale yi ndaw ñoo xam si ni. seen yaay jur na leen mais tamit kenn leen. waaye man su ma awoo biir Dakar gi wala biir Touba rek. ñu commencé Baye Cheikh ak ne Baye ne waaw loolu lan la. wallaahi xaw ma ko dëgg la suñ tubaab suñ tubaab xasida loolu suñ ko def si ñun suñ tubaa moo ko de si ñun wallaahi su ma jàngul woon xasida yi kenn mu faale dañ may romb gauche ak droite dëgg la de waaw waaye tamit nit ñi soq soq boo xam si ni dañ may bëgg-bëgg man tamit mu bëgg leen mm-hmm. waaw ku ma jox sa loxo tamit ma ma jox la sama loxo mm-hmm. nuyu la xam mm-hmm. fi am murit day bëggante te suñ tubaa tax waaye nag euh, am ñu loo xam si ni nag mooy li nga xam si ni mooy euh, suba am nañ foo xam si ni dañ fa war a dem. suñu benn xarit. ñun xale yu ndaw ñëpp dañ fay daje suba. muy Baye Moussa Touré Baye Moussa Touré. Baye Moussa Touré waaw. waaw moo suba. Hmm. Euh, fu mu aaye suba. moom géej waay la aaye. ah géej waay ok la la ko xamal naa waxoon naa la photo bi. nee naa la photo yi yëpp yaa ngi nii. Hmm, hmm. Euh, boo leen kii daal day neex. loolu benn. benn kii boo xam si day neex loolu day neex. Mhm. waaye tamit ñu leen di ziar ku mel ni Sëñ Moussa xam nga ko. Mhm. Sëñ Moussa Seye Baye Moussa Touré waaw ñu ngi leen di ziar bu baax a baax ñoom. Mhm. di jox seen wàccuwaay bu baax. ndax samay morom lañ te dañuy jàng Sëñ Tuubaa dañuy jàng. ci xasida yi mais naka ngay dundee nga nekk ak sa ay morom. Euh, yow si nga siiw. ñëpp xam la. adduna bi yëpp macha allah maa ngi laal maa ngi maa ngi laal bant. naka ngay dundee ci daara ji. Mm. ak ca koñ ba. Mm. ak ca kër ga ak sa yeneen moroom yi. naka naka ngay naka ngay dundee ak ñoom. nu laa dundee sama moroom yi. Mm-hmm. Euh, sama moroom yi daal moom. tuwaar la mm-hmm. ndax am na ñoo xam si ne nag li ma defal lañ may toppee. Mm-hmm. am na ñoo xam si nag duñ ma bëgg comme démb fi ma jógee. ma dama def direct ci Dakar gii. maa woon Touba fii benn jàng. mais tamit xale yi bëri nañ fa bëri goo xam si ni. Mhm. Euh, dañoo mujj programme bi sax nii nañ nañ ma fi téye ba ci kanam ndax su ma jàngoon rek ma di taale li xaw dina bëri. dëgg la ndax de programme ku ku nekk xam nañ ni yow boo aayoon programme doo bëgg mu teel a jeex. Mhm. moo tax ñu ni bàyyi Cheikh nañ ko fi téye. Mhm. ndax ñi ñëpp moom la xaar. lan moo taxoon ñoom ñëpp a bàbbeeku ñëw di la seetaan si. waaw waaw bi gis nga bi ñëwee ci pujum bi. bay toog bay jàng rek. li xale yëpp bàbbeeku ñëw toog ba euh, gars yi sonn nañ lool. Mhm. waaye loolu suñ tubaa rek. Mhm. suñ tubaa ko def si ñun. Mhm. waaw suñ tubaa ko def si ñun kon ñu tàllalaat loxo yi ñu ñaanal ñu ñun soxla nañu ñaan. ñu tàllalaat loxo yi ñu ñaanal ñu baax a xam ne ay ndaw rek lañ te xam ne liñ mën ci ci suñ ay waxtaan yooyu xam naa bëriwut. mënuñoo wax mënuñoo def dara. jàng xasida lañ ñu sant moom ñu dundal. waaw. sa sa sa waajur nga nga nga nga juddu fekk ko mu yore daara. Mhm. donc moom moo la ci ah, euh, dugal. ba nga doon ci li nga ci doon tey. Mhm. waaye njàng mi. Euh, mhm. ndax mën nga ñu nettali naka la demee ba nga am ci xam-xam ni macha allah ci at yi nga am. ndax nit judd na ba màgg. Euh, mënul benn daaju xasida oh, wala amu ci tur. wala amu ci benn xam-xam. waaye yow nga nekk tout tànk ba noppi. macha allah am ci tur. Mm-hmm. am ci xam-xam loolu nettali ñu nu mu demee Baye Cheikh. Euh, man dama juddu fekk sama waajur yor daara. Mm-hmm. mais man mën naa ni xawoon na maa day waar bi. ah lu tax loolu. duggoon naa ci ay fecc bàkku yooyu. ah bon. oui di def fi fu xale. di def fi fu xale. avant mooy jàng xasida yi. Pape Cheikh la bu ko def koo ci laaj mun la mën a na sos. bàkku sos. bàkku sos bi. yooyu yëpp mën mën na ko te foofu noonu bu ko rëggee ay mbapat. <laughs> wallaay ay reetaan ay reetaan ay reetaan damay jàpp quoi mu si tuwa Mbacke mais si tuwa amul morom. wallaay amul morom amul mais sama papa jëlee ma ci loolu ci li ma ci sama maam ni ko yóbbu ko. mais nu mu daan demee dañ la daan invité ngay ñëw di bàkku bàkku sos. wala yaa daan dem ci xew yi. foofu foofu danaa am euh, danaa am chaque comme ça ustaat la danaa am mbapat. ok dañ ko doon tëgg comme ni ñu tëggee football bi ni muy amee. dañ ko fa daan tëgg noonu waaw mu fees dell nag. mu amoon ci cap am ci euh, tëni am ci bot. amoon nga yooyu yëpp waaw <laughs> amoon naa yooyu yëpp yëpp kay amoon naa ko si. Uh-huh. waaye tamit Sëñ Tuubaa li muy def kenn amul morom. Sëñ Tuubaa amul morom. Mm-hmm. waaw ah, sama bab sama sama baay daal may jëli ci loolu. indi mhm. ma ci daara ji man naa ni bi may jëli ci daara ji xam ma dara. bi mhm. ma sama bis mu ñëw daara fàttaliwu ko. fàttaliku woo ko ba tey xamuloo ñaataat nga amoon boobu tan xamuloo fàtte nga. wóor na <laughs> sama ñëw daara. Mhm. ko. ba Sëriñ Tuubaa sama ñëw daara sama ñëw ko te meruloo woon parce que xale yóbbu ci daara te mu meroo jooyuloo meru ma jooyu ma def ma dara da nangu rek fi Sëñ Tuubaa fu mu lay jaar xoolal lii rek. tey mën naa ni moom biir biir Sénégal am na fu mu dum xanaa li ci des li ci génn. ay tamit ñu ngi sant ñëpp rek. di xam di jiital ci nuyoo bi. di kii di sant sama sama sama jàpp sama jàngkat. ki ma doon roy fii Ibrahima Gueye. Ibrahima Gueye di ko sant bu baax a baax di sant suñu jiil garaame ñoom ñëpp. seen xaalis caam moom am na am na bis bu muy def foofu bis bu mag sax. ku ci sant bu baax a baax. Pape Cheikh loolu moom Sëñ Tuubaa moo ko def. man moom daan naa bàkku daan naa def yëpp. daan nga bàkku ak yëpp. waaw mënati ngaa bàkku léegi waaye mënatoo ko defee. mënatu moo ko def léegi dootoo ko defati. léegi bi nga yeggee bi nga yeggee ci ci daara bi. Eh, après njàng mi foofu naka la fa demee woon ba nga mën ci lii nga ci mën ndax bi ngay dem nee nga. xamuloo dara ci ci ci xasida yi. Mhm. waaye suñu borom dimbali la. Eh, ba ba nga doon ci lii nga ci doon. Mhm. bi nga yeggee ba sa baay bi yóbbu la foofu naka la naka la mbir yi demee. sama papa bu ma yóbbu ci daara ji noonu dañ may xam nga dañ la daara bu la fi yóbbu di jikk aliwo am foo jaar fir ji nga commencé si daara eh, tamit bi bi ma ba jàng ba wàcc am naa ni yow wàcc alxuraan ba wootu alxuraan yàggu mën naa ni korte bi passé ba ci topp ba ci toppaat la mm-hmm. ci la ba tey jii avant ma acaruan, alxuraan muy xasida gi ma njëkk a mën moom la jàngal fii sànq. mu yasara yi bii nga njëkk a mën. waaw moom laa njëkk a mën xasida googu laa njëkk ci laa ko jàngee ci isbu tarxiya uh-huh. ci ci ci ci jur na xasida ngaay bi. ci laa ko njëkk ki ma ki ki ma ki ma ma sax dama sikkar rek. bu ma sikkar lu ne. bu ma sikkar muy sama rakku papa la. Uh-huh. moom mu naan uuf may jàng ci daara Ndukuru bi uh-huh. eh, ba léegi nii sax am na ñoo xam si ne buñ aayee dañuy bëgg ma ñëw uh-huh. ndax ni ma mënee xas di léegi rek uh-huh. waaye tamit eh, gis nga bi ma bi ma bi ma mënee xas dëggoogu mu yësal li mu yësalu asil yi boobu benn paas la daanaka benn paas ma teg ci rabbi bi maay surxul asra naqat fa jaa ma teg ko ci bi ma ko ci tegee eh, di mujj di dem dañ ma bett Ibra Gueye dama jógee ñu ñëw rek yëkkati teg ma ci puju mi ni nga demee da ngay jàng ak xasida wallaahi te waajoo ko waajoo ma ko ma bay bëgg a dee waaye ma jël micro bi rek jàng xam ne Sëriñ Tuubaa rek jàng nekk boobu siw lool lool lool lool nga xam si ni mat détaillé waaye amat laal yëg-yëg bi boo xam si ni Sëriñ Tuubaa ko def si ñoom loolu moom ñu ci yaakaar Sëriñ Tuubaa baax baax Mengok, eh, e, actuellement yaa ngi am projet bu mak bo xamni ni mm-hmm. bëgg naa ñu wax ci kan? muy kër Serigne Touba bi nga mm-hmm. bi nga bëgg tabax euh, ndukura mais balay bobu lan motax nga nek xalé mm-hmm. jékki-jékki xalaat ni rek war nga ibi euh, fo xamé ni sa morom yi dañu fay mën di ñew di jang wa nak bala kër xasida gi ñëw moom manam kër xasida degi euh bin bin bin nakoy may manam ci jang lañ mako may su ma nekkoon xale boo xam si ni damay ñëw taxawal kenn mën ne kenn du ma may xas. kenn du la faale sax kenn du ma may kër gi. Mm-hmm. Mm-hmm. waaye ma ko may man tamit xalaatuma ci dara lu dul kër Sëriñ Tuubaa def ko kër Sëriñ Tuubaa war na ko ba mu kii. lu defoo ko pour sa yëf dëkk fa. Ah, tabax ko loolu dañoo am yëg-yëg Sëriñ mm-hmm. Tuubaa ñun Sëriñ Tuubaa defal defal lu ko kenn. Sëriñ Tuubaa dañoo defal loo xam si koo fay. suñu waajur defu ci suñu suñu baay defu ko ci. loolu la Sëriñ moo ñu defal loolu. waaw waaye tamit nag ñu santaat ko baax ndax kër xasida gi li tax ma defar ko dafa am ñoo xam si ne jàngkat kom comme samay morom dañuy ñëw ngaay ngaay euh, xam nga rek euh, war a comme am fa ñaari bis war faa fanaan loolu nag moo tax sama xel xalaat ci pour mën leen fay dalal. waaw parce que bu ñu ñëwee am fu ñu fanaan ñu dëkk. Mm-hmm. loolu laa bëgg. Mm-hmm. waaye nag ñu ngi yaan yàlla mu pare jàmm rek. Euh, incha allah bu soobee yàlla dina xam Baye Cheikh mu xam këram la koy def wala kër Sëñ Tuubaa la koy def waaw foofu noonu lay leeree nag d'accord euh, nii da nga am ay programme am dañuy di di def tournée di dem mhm. ci dëkk yi di dem di mhm. jàngi xasida sa ay programme naka lay demee sama programme Baye Cheikh mhm. euh, su su fekkee ni nan nan lay demee damay yor olivo di jàng damay jël sama téere di jàng alxuraan bis bu jot waaw dañuy dañuy jàng buñ jàngee affaire bi dañuy dab suñu papa la ñu woo téléphone rek moom di jib ci keneen am ngeen fenn programme. waxtaan ah, ñu waxtaan ci. ba dëppoo ci waaw ñu soog a wut oto dem. Mhm. waaye tamit problème oto tamit soxla nañ ko. ndax tamit nga xam si ni garage bi yéeme na lool. parce que yow boo waree jógee sa dëkk. Mhm. wala ñëw Dakar wala dem mhm. feneen. nooy def da ngay yéeg di wàcc ci oto yi rek. ba yéeg ci wàcc ci oto si loolu métti na trop métti na trop waaye tamit ñu ngi xaasuñ tubaab rek. métti na trop te it. Euh, li gën a métti mooy garage bi ngay garage bi ngay taxaw diggante boobu dina am ñu la sopp ñoo xam si ni dañ fay ñëw taxaw di leen nuyu di def nii loolu da ngay sonn loolu loolu mm-hmm. mm-hmm. waaye nit du la nuyu ba pare nga sànni sa loxo def noonu kenn kenn kenn foo li ngay def da ngay da am yëg-yëg ni Sëñ Tuubaa moo la ko defal li tax mu leen nuyu Sëñ Tuubaa tax mm-hmm. xës di la gis yow ak ak ak na mel melokaan waaye wax naa la ko tey sànq nii nee naa la su man doonoon koo xam si ni damay taxawaale ci mbedd mi gi kenn du ma faale. Mhm. kenn du ma faale kenn du ma andi fenn. Mhm. yàlla xam na ko waaye sant Sëñ Tuubaa rek. mën na Sëñ Tuubaa. ñu mhm. ngi koy sant di ko yaakaar tey ak ëllëg nag. est-ce que di nga ànd ak sa ay morom. ndax dañuy wax ni xale day def fu xale foo bu bu weesoo xasa xasida yi ak alxuraan bi ak kaamil géeg ñoom seen. di nga def nag yi fu xale. andak say xarit. di nga di nga def yenen lolu bu loolu bu de lolu ak waxtaan ak say ah, xarit ah, ak. waaw waaw waaw loolu ma ci touti waaye ci daara ji lay amé nak ah ci daara ji lay amé waaw parce que comme comme tay la loolu sax. ajjuma tay la ajjuma waaw non buñu jang ak alxames ki waaw duñ ak du ko ak gi. ko xam nga nga bu bu yu bu amul rek. mën nga toog waxtaan. ak say moroom. ak say par nga jël sa téléphone nga woo sa sa moromu jànk ci ndaw yi. appel waxtaan. ah appel vidéo ngeen waxtaan waxtaan waxtaan. <laughs> bàyyi Cheikh waay loo yore fan yi iPhone. ah non sama téléphone la yoruma dara. <laughs> yàlla xam na ko damaa daanu ba jeex. parce que dégg ma foog ni man iPhone nga yore. iPhone iPhone di ma ko yaa ngi yor iPhone itu kay dañ ma si jox non iPhone di iPhone Dong, Baye Cheikh eh, ñu eh, sunu eh, téléspectateurs yi ñu ngi yónnee ay questions yu bëri mm. di la ko di la ko di la ko di la ko laaj mais dañu lay bàyyi nga am loo ñu nga am loo ñu loo ñu loo da nga ànd ak sa Serigne Saliou nga bëgg mu ñëw dimbali la wala Aja aca ñëwal nga nga nga dimbali ko bu ko defee mu sikkaral ñu tuuti ñu doog a àggali waxtaan bi Serigne Saliou moom yaa ko mag. maa ko mag. pourtant moom mu ngi mel ni moo la mag. Ah. moom tam grand la de. ah non grand la de <laughs> moom. waaye Serigne Saliou grand la waaye. grand la de Serigne Saliou de mu ngi noonu grand la de. macha allah macha allah macha allah. ayca kon ñu déglu leen bisimilah. bismillahi rahmani rahim. wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima من وقت ذل وجه النبي مهجل لبدري يدي وثانني بأهل البدر كرمه أهجل كل بهري وبان لي في البر بار باري سلام سماس العظيم البر على النبي رسوله ذي البر سهد لي ربي ويهلي قدري ربي وبه وحب للبدر سبحان ربك رب ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم مبارك الابتداء ميمونة الاقتداء إيه، الحمد لله الذي صلي النبي منتخب مجلي لا وسلم عليه لا في الآل وثبي وموالاه وأمر لك أيضا بسلام ليس أيضا بسالك ولا اسم إلينا وجه الخطاب تكرهن وانفس اتابا قمت خير لما امتثال امر جميل للحم مثالي يا مرابي امر macha allah. macha allah kii mu kii mu rey nii sunu bàyyi la mën naa ni sunu sunu jànkat bu mag la muy Bamba Ndiaye. Bamba Ndiaye. Bamba Ndiaye sunu sunu sunu sunu bàyyati bàyyi la xam naa. macha allah parce que mag la nag. mag la nii fu mu nekk nii mag la. ñu ngi ko ziar baax a baax moom tamit euh, mën na jàng loolu tamit waaye ñu ngi ñaan baat bi gën a wér. amiin amiin euh, di ko ñaanal baax a baax a baax di ñaanal tamit moromu jànkat yëpp. waaw jërëjëf Baye Sall si Saliou. amiin.

Euh, bu ca kanamee tuuti euh, àggali itam waxtaan bi ak euh, Baye Seex Xasida suma dooma doomu na fi jeey <laughs> ah ak sa soppe yi daal ñu ngi ñu ngi réagir sànq ba tey Imam Assane Cissé Seck sa ay jur yu bëri ñu ngi ñu ngi bëgg ci sa sa gëm mm. est-ce que yomb na ni nga gëmee xasida yi mm. ni nga gëmee Serigne Touba ni nga gëmee yoon wi mm. ndax yomb na pour yow mën naa ne moom xawtu yomb de waaye tamit booy jàng xam nga rek faaw affaire tamit dalaale tuuti. nelaw gi max. mais est ci daara ji dañ boo dee jàng nañ la caw wala nañ la kaata parce que man bi ma nekkee daara dañ ma daan kaata. a ñàkk. waaw mënut a ñàkk yaa ngi noonu ñu boole kaata kaata sama nopp yi loolu a ñàkk mënut a ñàkk. mënut a ñàkk ndax tey donga daara mooy lépp. ndax tey ji nañ ni. képp koo xam si ni kilifa diine nga rek ci doo nga daara ci jaar nga ci. dëgg la ku fi baax ci daara ku fi baax ci daara nga jaar. waaw muy ñëpp rek kilifa yi ñëpp rek ci daara lañ jaar. képp képp tëb tëbul rek mokkal alxuraan yi yàlla jox la lépp xam-xam jëpp loolu tëb tëbul euh, maye ko. yàlla du def loolu faaw nga jaar ci faaw nga mittal xam joxe sa bakkan joxe si lépp waaye nag boo paree nekk buur waaw. macha <laughs> allez les gens def mooy jàll ci publicité juste après ñu àggali euh, midi plus bi spécial avec euh, Mbaye